ñu ngi sant yàlla julli yonent bi di nuyu mbooleem kuy déglu suñu kàddu kuy seetaan suñu jëm ak fu mën nekk ci gox yu fasanti koy jéggalul kàddu yi jub bàyyi ko ci donga dib taalibe di sàkku nekk muridu saadix ngir fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci way juróomu tedd woo ci wàccaayu màggalam bu mag gii ñu dëg moon mu màggalu Poroxaan ko mbokk yi nga xamante ni ñooy sonne ci liggéeyal Serigne Touba ci wàllu mm, xarale yu bees yi di internet bi nekk si alxadimiya yàgg ànd ak ñoom ci liggéey bu rafet di teewlu tamit seeni liggéey rafet yi nga xam ne ñoo def ci barab yi fasantikoo ñu ñaan yàlla yàlla saa borom dëgëral leen te yokk leen ndam boole leen ci li sëriñ bi wax ni inna lazina saarahu li xidmati falahum diya wasta janna mel ni bu nu waxtaanee soxna jaara ay jaar-jaaram ay jikkoom ci jamono ji nekk na loo xamante ni lu war la sababu waxtaan bi nag na bokk ci li tax ñu jël thème bi jëlaat soxna jaara comme modèle comme modèle ci ay domaine yu bokkut Soxna Jaara ñu jàpp ko comme modèle ci naka la ñuy yare naka la ñuy éduquer doomu waaye ñu jàppe ko tamit comme modèle ci borom ji jigéen naka la war a amee jikko ju rafet ba fu mu dem ñu nawloo ko doxalinam ñëpp rafetlu ko waaye tamit Soxna Jaara comme modèle ci naka la jigéen di nekk ci kër ba am fa ndam ba kenn du ko jam waaye Soxna Jaara tamit jikko jim làmboo woon ba tax àdduna bi tey ñëpp àndandoo nangul ko benn cër bu muy jaaratullaahi bisu te ñëpp xam nañ ni tur bi dëgg-dëgg mooy yàlla loolu moom leen bëgg a jàngat ànd ko mbokk yi liggéey ci site Al gis nañ ni waxtaan wi mënut na ñàkk ñu delloosiwaat jikko yi ku mel ni soxna yàlla ak tegaat ko ci kaw terrain bi ndax gis nañ ni fi mu toll nii crise valeur bi am ñëpp jaaxle kenn xamatul fooy jaar bi jéem a roy ji kenn dem ba am ñoo xam occident yi sax lañ jàppe ñu seen idol te l'islam fees dell ay idol yoo xamante ni koo ci jël doy na sëkk roy téef rawatina ak soxna si nga xamante ni tey moom lañ di waxtaane ay mbiram nga xamante ni benn rek ci dundam benn jàngat boo ci jël man nga cee xam ni benn jàngat gi rek man nga cee dundu àdduna al akhirah te bu ëllëgee bo doon dégg sa borom am ci ngërëm ñi ñëkke tomb bi nga xamanteni mo ngeen lañ di ñëkke di waxtaane ci nit muy aduna am ak askan wi mbokk moy tomb bu njëkk ñaareelu tomb ba moy am njàngam ak kiko tarbiya bi mu jàngee ba noppi kan moo tarbiya ba tax dara ji mu am ci yàlla mu am ko ci ñetteel ba soxna jaar ni mu woon nek ndaw ak nek ma xalayam yalla li tax ñu bind ñu moy liggéey liggéeyal ko jaamu ko teel dégg gim teel dégg loola ba tax mu fot profito ci dundam bi donte adee bari wut waaye dund bu fees del la ñeenteel pam ba mooy soxna si ak nim nekke yarteef éducateur nim nekke yar yarkat naka la benn méthode la doon yare ay doomam waaye ban méthode tamit la nekke woon ci biir daara ja doon yar tout tànk yu jigéen yaa xam ñoom nekkoon ak yow soxna sëñ Mamour Anta Sali jikkoy soxna si nag moom la ñuy tëjee kon li nga xamante ni noonu la ko mag ñu baax ñi wóoroon Seexul Xadim te nekkoon ci daara Sëriñ Mamour ja taalife ay bind yu bare bare bare ci moom ndax waxtaan ci moom dana yomb du yomb ndax bindkat yi lu mel ni sëñ Mor Kayre wala na ci diiwaan bu yaatu lépp mu jagleel ko soxna jaara serigne bay jaxate radiyallahu anhu way na ci diwan serigne musa ka tamit way ci diwan jagnel ko ko waye tamit serigne modjo faxa radiyallahu anhu sin samba jaara may nga gis ni dundu ko fess gi dundu ko am njariñ gi donte bari wut mo sabab mo sabab lolu mo sabab dundu gi limi gatt gatt gatt fess dal ak yi mahna ñu def ci lolu lepp ñu ñëkke ci nak ak adunam soxna Jaara mu ngi gane àdduna ci environnement boo xamante ni lépp yàllay kese la ci ñaari waajur yoo xamante ni yàllay kese tamit nga doon sonn ndax dañ ni suuf soo gis am na gàncax gu fay sax waaye environnement boo gis am na ay nit yu fay dund moo tax fi mu ganee àdduna fi mu meññee meññiru set wicc la bu kenn mënut a ci dara te saa yu dàqu garab baaxee nag bànqaase war a mën jub xocc Mata mu ngi gane aduna dekk bu ni wax mbosobe mbosobe nekkon ben dekk ci fouta te jamono jooju xam nan ni lu jëm ci yalla wa fouta kenn rawu len ci won mata ben way kan nan wa wulidat fi qaryatin mbosobe min tamrasin wa asluhu fuutiya kon mom mu ngi gane aduna ci dëkk mbosobe atum tamras nak la gane aduna atum tamras bobu ci la gane aduna mu nek at mo xamanteni ak leer bu rëy moo jollee fuuta ndax kii yàlla di waajal ki war a xettali jamono nekk way képp koo xam ne ak nga dara doon ëllëg eh, moom bi mu gënee àdduna dafa indaale ay kéemaan yu tegtale ne kat kii borom yëf la waaye cosaanam cosaanam dëgg ci waa fuuta la bokk moom soxna si waaye juróomu jigéen ñu gën koo miime ci soxna astuwaalo waaye turam dëgg-dëgg di sëriñ soxna Aysatu Mbàkke Mbàkke la sant moom waajuram wu jigéen ñu bare bare na ñoo xamee soxna astuwaalo waaye sayyidatuna Aysatu Mbàkke la tudd moom nag jëmmi sayyidatuna Aysa mooma di waajuram wu jigéen kon ni nga xamante ni yàlla bu nammee aw nit ci ñoom ak jag da leen di tànn da leen di tànnal yoon woo xamante ni yoon wa yoon wu jag la teg leen ca ñoom ñëpp ñu topp ko di dem moo tax mu tànnal ko wayjur yoo xamante ni kenn du leen jam tuuma ci benn côté moo tax sayyidatuna Aïssa Mbàkke moomu di soxna astuwaalo nekkoon na ko tedd ci wàllu gépp jikko ju tedd la amee woon doxe na lu sell la amee woon waaye ku yëkkati ko woon ay mbébét la ay yitte yu kawe la amee woon ci dëgmal borom subhanahu wa taala moo tax benn waykat ni wa ummuha aïsatu mbakkiya karimatun saafiyatun naqiya nga gis ni kon lim doon wax noonu ci wolof kooku tënk na ko ci benn baytu arab di seede way juróomu jigéen woowu ni mu nekkoon waaye noonu la way juróomu jigéen yu nekk woon borom xam-xam bu jeexal fànn yu baree baree bari ndax miime woon nañ ko ci sëñ daara foofu ca naawel mooy ron fa daara ju mag bu daan toog jàngale banaana ku daan musaa ñëw da nga yaakaar ni sax góor moo toog ndax colin nga yiiw nga muy yiiw waaye tamit colin nga matale gi muy matale waaye pëstéefu njàngale gi yàqali ko tamit naafile guddi ya ni muy jàngalee bëccëg gi ak ngoon gi du ko tee taxawee naafile guddi kon nga gis ne boobu loola kon dafa bokkoon ci jikko yi nga xamante nekkoon na ci waajuru mu jigéen ba waaye noonu nekkoon tamit moom ku mokkaloon alquran moom waajuru jigéen ba nekk tamit ku daan ubbee masala yi ñu naan ko mufti nga xamante ne masala fu mu jugee boo ñëwee laaj ko ko dana ci tontu kemt lay kàttanam ak la ko ci yàlla subhanahu wa taala may nekkoon tamit ku siiw ci wàllu jàngale alquran ak tafsir alquran ak matière yu aju ci mbirum diine moo tax benn waykat bu nekkoon jaroon keppaaru sëriñ maamar anta ne alimatun mursidatun latifa xaafisatun muftiyatun sharifa nee na jëmmi soxna astuwaalo borom am xam la woon bu jub xocc waaye ku amoon ñeewantu la ci tout tànk ak mag waaye ku wattu woon alquran la wattin wu rafet rafet woo xam ne kenn mënu koo ayibal benn côté noonu la nekkee woon tamit bari woon ay liggéey yu mu daan def ni doon jàngalee noonu la doon liggéeyee ngir jéem a fàggu lu lay lu lew di ko dunde ndax xam na lu lew li muy def ci doomu ndax moo tax bari woon na tamit lu doon def ay déplacement di dem ci ay désert di dem ci ay dëkk di sañ ci ay dëkk saa yu nekkee ci barab pat fa da daan toxal daara ci beneen dëkk boo xamante ne fa daan gën a yàgg ànd ak wéyjuru soxna Jaara mu sëriñ Mbasoobe daan ànd ak moom moo tax woykat bi ni kasiratul xadamaati nekk nag moom sayyidatna ndax kenn mooy da ngay jiital laytaayam ba boo agsee ci jikkoom xam ne jikko yi noonu fu mu mën a jaar noonu rek la mën a mel ndax la ko meññ ma na mel rek moom noonu la war a mën a mel ndax ku la ku la ak jiwu ngeen loo jàkk ca daal di nekk ci loolu ba keroog muy laxas wuy ji boromam subhanahu wa taala ca naawel atum basasin muy at moo xamante ni atum tiis la ca ba yàlla mu nekkoon foofa ca naawel àndoon ak sëriñam bu baax booba wuy ji woon wooteeb sëriñ Maba Jaxu Ba bu siiw booba moo tax donga ya nekkoon jaroon keppaar ya ni hatta tuwaffiyat ladan naawili min basasin fil afsahil maqili foofu tamit nan ko daal di denc foofu ca naawel ku dem naawel insha allahu taala danga ko fekk barab ba ñu wax ni képp ku ko siyaara ji loo ci yéene am ko mu bari mbokk yoo xam ne bu dee dem poroxaan sax dañ fay jaar doo ko jàll poroxaan wa finak, min hindi batna li badadi man zaadaha yalqa jazaa yarta bi kon loolu mooy aslëf ci li nga xamante dunduk sayyidatna aïsatu mbàkke ñu gën koo xam ci soxna astuwaalo mi way jigu soxna jaara mu kon gis tan ni yooyu jikko bu bonek ci doom ji kon du nekk kiimaan ndax li wax sànq la la taw jigu jiwu ngeen duroo jàkk waaye ñu ñëw ci bi ginaaw bi ñu jàngatee ak ganek addunaam ak askan wa mu bokk gis nañ ni kon ñaareelu tomb bi ñu waxoon mooy am njàngam soxna Jaara ku jàng la fànn yu bare bari jàng na ko kon ni ko doomi soxna yi baaxoo jàng ginnaaw bi ak fan la ko jànge ñu ni du soxna Jaaratullaahi Buso mu ngi jànge alquran ci loxoy waajuram yu tedd ba muy soxna Aysatu Mbàkke ndax nee naa la sànq daara la yoron moko jangal alquran ci loxoy bopam ba mokal bim ko mokkalee ba nopi moko don teural tëral xam-xam yi ba jang la soob sun borom subhanahu wa taala waye tamit ci lolu tamit bimi jang ci dafa don tarbiya diko tarqiya diko ko ci fi nitu yalla yi di jaar pour mën am daraja yu kawe yi ba tax tay di lim am am ko motax bindikat yooya nekkon ta seen keppaar ya ni wa baqiyat fi ummiha sharifa wa quri'at bi yadiha latifa do koy way juro mu tedd wala dess fa la alquran balim xam lépp mu xam ko waye tamit nek ni nek ci askanu tedd rek taxul soxna jaar sukkandiku ci lolu ni duma def dara ndax defal nan ma kon la arab ba taqul asli wa fasli innama aslul fata ma qad hasal bul fi nekk naan saa bàyyee baax sama ndeyee baax ba tax doo def dara lu baax moom gaa daal la ndamoo liggéeyu ndeyam ak bàyyam waaye dafa futteeku nag fa ndeyam ci liggéey bu rafet mu jaar fa liggéey ba tax bi di ko joobee moo tax basalat juhudaha al maadiya fa naalatil maratib al xaliya ci loolu la daal di nag def effort kon ñëpp defe effort ba tax tey mu am daraja yu kawe yi moom soxna Jaaratullaahi Buso waaye tamit nga gis ni nekkoon na koo xam ab doxalinam ci bi muy nekk tu tànk nee na teeloon naa mokkal téere bi ni wax dalailul xayraat imaamul jazuli taalifoon ko ta sëriñ bi yeesalaat lu mel noonu def ko bitul maraqib nga gis ni téere boobu neewoon nan soxna si teeloon na ko mokkal muy wax ci salaatu ala nabi daan ko doxantoo sax bu daan doxantoo nga gis mom la daan wéttalikoo ci aw yonam wala len nit ci am njàngum alquran waaye daal ko fekk muy def loxoy nen ñu gis ni kon am njàngam dëgg akub tarbiyaam ci loxoy way juróomu jigéen woowu la ko defee bi ci top moy muy su ñetteelu tomb ci dunduk soxna si soxna si ab liggéeyam ci biir keur Serigne Mamour Anta ab liggéeyam biir keur Serigne Mamour Anta ak top ndigal gum top ndigal ñepp war ko ci roy war ci jangat lu ñëk nak ñu dugg ci liggéey ba dañuy wax ci tarikh ni Serigne Mamor bu soxna jariyatullah bu su ñëwee ci kër Serigne Mamor soxna Anta Jaay radiyallahu anhuma mo taxawon tem ni ko dama bëgg nga wut benen soxna suma jappalé ci liggéeyu kër gi te gis na ci ko ma doy ni Serigne Mamor bi ko soxna Anta Ndiaye waxee loolu dani ko ci noor la nu nekk te sàq yi fëgg nañu loola ñi nekkoon ci dëkk yu ma jamono jooju xam nañ ko sàq bi fëgg mooy fi mu toll daanaka li yoroon ci as lëf ci alal daanaka xaw na wàññeeku fi mu toll song ji daanaka di ko jéem a indi nga jàpp ne ci man ñu ne keroog moo yëkkati woon alalam jox ko ne ko demal nga jëli ko indil ma ko bi ko jëlee di ko indi tamit da ko wax ni ko am na ay qualité sangam yu nekk ci moom moo tax ma nawloo ko ba tax ma yebal la fa nga gis ni kon moom gis na ci doxalina soxna jaara lu ko yiim ak lu ko euh, yiim yiim yi loo xamante ni ëpp na doole ba tax mu nangoo yëkkati alal mu fekk si ko ci kër gi ñu ànd liggéey liggéey bi kon loolu gis nañ ni yaakaar naa bari wutum am ci histoire ndax bari na tey kër bu yëngu le ko yëngu mooy kenn ku fa nekkoon nekkoon ci dundam waaye keneen lañ ko indi rek mu commencé wane jikko ba bare na mag ñuy wax sax naan benn soxna kenn du ko teel a gërëm di fekk amul ko ko fekk si nga gis ni kon kii moom lenn ci taarix nettali nan ni ak dikkam ci kër gi foofu la jaar waaye tamit bi mu ñëwee ci kër gi ñu ànd ànd mu rafet ndax bi mu ñëwee fekk ko mbàkke bawol fa la ko fekk gisas ci Touba tey fekk te soxna ta jaay mu nekk magum kër gi méthode bi mu ànd ak moom dafa jafe li wax sànq da édol la ci képp ku ne ci kër bi mu ñëwee daal ko yaay magum kër gi liggéey nga fi ay at taxaw ba kenn fekku la ci bàyyil ma wàcce la di la fóotal di la toggal di la soqal ak room nga gis ni kon dafa mel ni ku ko jàppee wax goro wàcce ko mboolem liggéey boo xamante ni waroon nañ koo ñoom ñaar. soxna Anta xaw a diibal loolu mu ne ko man maa la ko ñaan may ma ko ca ko daal di nangu may ko ko bi mu ko mayee nag coow commencé topp ci yenn ci ñun dëkkaloon ci jamono jooju ne lii de du wëy ndax ñoo ngi koy doog a gis ñëw ci kër wàcce sama cib liggéey tey dañ koy doog a dégg ci kër Mamadou Anta Sali gii lañ ko dégg waaye kii la da ngay gàtt rek xamul liggéey bu rëy bii ci daara ji du continuer. waaye noonu la nekk ak moom noonu la nekk moom ba di wàcc àdduna kon nga gis ni liggéey ba rëyin na rëyin woo xamante ni ba sax àggoon na ci fiiraangi jigéen ci lim jàppale sama anta ñin dëkkaloon bu dee rot si teen bi sax nee na daaw ñu ko nangoo yan ndax xaw a en buñ ko en ci lim nangool soxna anta ba tax bu rootee ba na ko sax pour mu gis ku ko yan day xaw a jafe ndax ñoom ñëpp dañ ko mel ku ko amul kon wo digginam woowu moo ñëwin ci kër gi waaye tamit nga gis lim lebal sama anta dafa mel ni seex dafa loolu ko fay loolu fay doomam ju baax ja ndax dane woon maay sopp ko rob ak awal boole liggéey di ko bi ñëwee noonu la wax ni loolu mooy tarbiyam méthode boobu la indi yendoo liggéey fanaanee nelaw ba naat di xewal ma fa xewal nuyo bi raam moo ne tere wuyooti nam fekk ko ni jang fa maam mo mi murid di pexe ni gis kon lim la won soxna ta jay sun borom fay na fay na ko sin tuba ci Serap Fall nga gis ni tamit lolo tamit ab liggéey la ndax kamaa tudi tuddaa la waye toppin wu rafet wi len ci mu amee ko ni netri nan ni soxna si yenn saa yi da daan yëkkati. waajtaayam yi nga xam ne moom la war a waaje waajtaay yi mu war a waaje da ko daan yëkkati waajtaay nag mu ko waxee mooy si colinu jigéen ji waaje ak takkaayam yu gànjarewu ya mu am da ko daan jël di ko jaay ngir lan ngir jàppale Serigne Mamadou Anta ci kër gi waaye tamit ngir berdeelal ko ay ganam waaye tamit ngir jàppale tamit waa dëkk bi kon moo tax benn mag mu fekke woon liggéey ba mais man ñi nekkoon ci daara yi sëñ Mamoor Anta moo ne tawran tabibul xulya bil muuni wa li duyufil baxli wal quruni nga gis ni yenn saa yi da daan jaay ay takkaayam lil muuni ngir dundu kër gi waaye yenn saa yi wa li duyufil baxli da takkaayam ngir gani gani sëriñ Mamoor Anta Sali wal quruni ak i xaritam yi daan ñëw di ko seetsi ci loolu la àgg safar ni am na gan yu fa ñëw ñu toll ci waxtu tàngalal leen café amuñu café bu leen tàngalal wala boog café ngi fi waaye dafa taw ba sibbi làkk wi làkk wi mooy fi ñuy ci matt yi matt ma fa nekk dafa koy xib amul fu mu jafale pour matt mi fi ne daa tooy ci la daal di jël tey bu doon wax armoire six la jël daal koy xar waajal ko muy mat woo xamante ni moom ci préparé ngir togg foofu na ñu taxaw fi tuuti ndax kii di jël ab almuwaaram di ko waajale togg yaakaar naa kuy roy ci moom tey jàngat ci moom te koy diglu jàngat ci moom ay doxalin yaakaar naa waru ab gaz warut a rëng-rëng sab sëy te balaa nag sëy boo xamante ni gaz ba day jeex la ko war a sarse nekku fa ñu digal ko mu jënd mat waaye foofu lay taxaw ba añ ba a naaje kii na yaakaar naa du ab añ sax waaye café bu doon tàngal moo ko motivé ba mu dem jël almuwaaram di ko xaar ngir jéem ci togg ca café wa aqasat fësan ila taabuuti li yuksira taabuuti fil buyuuti ñu ne waaw lan moo taxoon mu def loolu mu ne wa tusqina al qahwata minha lil baxli fa fariha al baxlu fa maddaha al aslu ñu ni bi mu defee loolu ci la Serigne Mamour Anta bég ci moom kontaan ci moom ba bani ko lépp loo doon sàkku tey xamal ni da am lu ko fawqa àdduna am ko lu ko fawqa alaxira te xam na ni jigéen yonent bi aleyhi salaatu wax saa yu làqee ngërëmal sëriñam am na àjjana bu wér te kenn mënu koo weddi bokk nag tamit li yonent bi aleyhi salaatu ni woon jigéen gi gën ci jigéen yi jigen joju soxna jaar lambo na melokan yi taxol yaronte bi doon wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dani jigen gi gën ci jigen moy ki yore melokan yi moy critère yi moy bu fekke ni sa yoo ko gisee sa xol dana sedd ci mom ci wu ak top ndigal waye tamit sa yoo ko digele mu defin ko ba defin wa sax mu def ci lu gëna sedd sa xol ñetteel ba saa yoo ko wanee ginnaaw mu sàmmal la boppam sàmmal la sa alal sàmmal la sa njaboot ba dara lu xew ci kër gi lii lépp soxna Jaara lamboo woon na ko moo tax mu am ngërëmal Serigne Mamour Anta yonent bi aleyhi salaatu salaam dañu wax ne xayru nisaa'i man ida nazarta ilayha sarratka wa ida amartaha ataatka wa ida xibta anha xafisatka fi nafsiha wa maliha wa malika kon gis na ni melokaan yooyu yëpp mu ngi woon ci moom beneen bi ci des tamit mooy soxna jaara ci wàllu tarbiya gi mu doon tarbiya ak njabootam tarbiya gi nag wares na ci jàngat bu bari lu baax a ci képp koo xam ne yaa ak njàngaleem di ko jéem a roy wa qad tarabba nasluha fi diini wa qad tarabba naslaha fi diini wa fil muruati wa fil yaqin soxna si yar bi tambli wu ko ci yar njaboot gi wu ko ci bi njaboot gi gane aduna da ko tambali bi ni wajal njaboot gi pour njaboot gi ñew fa la tàmbalee yar njaboot gi muy lan yar bopam jëmbat ci bopam jikko yu rafet yo xamanteni bu njaboot gi nampo ci jikko nampo tan leen ca dañi dal di nek na ño xamanteni roy ci fa ni doon ba faww jant la ñuy doon ci képp ko xamanteni fenk nga ak ñom ndax jant bi yor-yor bu fenkandoo ak kenn ca la daal di waajal boppam waajal leen ñoom tamit waajal boppam gi mooy walam musta am musta dekk nekk tamit ci xalaatam musuñu koo gis muy toogandoo ak jigéen moroomi jigéenam yu góor ñi nag moom safut a wax nga gis ni kon loola teel koo jëmbat ci kawam ba tax ñi meññeekoo ci moom bi ñëwee melokaan yu rek lan daal di lan daal di yor ndax lu waay nàmp géex ko te lu waay nàmp tàmpatal ko ca la daal di deñ musta nag di dénk njaboot gi sonn ci diine sonn ci mbañu dus sonn ci maqaamaatul yaqiin mooy ragal yàlla yaakaar ko dëddu àdduna mustaden di leen dénk loola di leen dénk tamit fu mën a nekk ñu nekk ñu dëggu ñu am kersa te ñoom dëkk jàng ak yaru ak yeewu ak jàmbaare lool ci yoonu yàlla am dogg gu mat sëkk waaye tamit am kóolute ba képp ku leen wóolu lu mu leen wóolu lu ne seen yaakaaram du tas ci moom waaye taxawee naa fi la guddi ak jéema fàggu ji lu lew ak fàggu tamit lu leen di jariñ àdduna ak alaxira ci melokaan yii ci la soxna jaara yar njaboot gi moo tax waykat bi ni walam tazal tuusihimu diyaana wa sidqa wa sidqu wal xayaa wa siyaana wa darsu wal adabu wal fataana wal azmu wa sujaahu wal amaana wa naflu wal qiyaamu fi llayaali wa kasbu maa yufiidu fi lmaali nga gis ni kon melokaan yii la soxna si yare woon ak njabootam waaye yarin woo xamante ni du ay waxi kese tarbiyatul xaal lay doon soxna si mooy jiitu di def njaboot gi topp ci ginnaawam di ci roy ndax bokk na ci li Cheikh Mamadou Bachir wax ci Minanul Baaxil Xadim ni sëriñ bi bi muy taxawee naafile guddi matagut a dem daara ci ay at ci zahir ba pare booba kon amagul juróom-ñaari at ci zahir te booba moo ngi daan taxawee naafila guddi loolu fu mu ko gisee ci way juróom wu tedd wi muy soxna Jaaratu Bàyyi Buso ci la ko gisee ba mu roy ca loola waaye si musta di leen dénk nitu yàlla yu baax yi nin daan jaamoo yàlla ba tax loola moo jeexintaloon ci sëriñ bi ba tax sëriñ bi daan teel a génn yenn saa yi mu daan nekk ci àll bi di beru bi wéetal suñu borom subhanahu wa taala foofa kon ni nga ko xamee ci ndaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ni borom Hamziya waxee alifan nuska wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakada nujaba ku war a nekk ab tànneef ëllëg in fokk critères yi day nekk ci sa ndaw mooy teel miin ak jaamu yàlla teel a nangoo waaye teel a dëkk tamit noppi say kàddu di néew ci lu am solo ñu gis ni kon loolu ba nga ko roy ci way juróom baax bi soxna jaar tamit nettali na soxna soxna jaara bariwut lu mu doon nettali ci wàllu yaram tamit ñi kenn ko ne war na ko ci roy ndax nekkoon na way jur woo xam ne ku bi sëriñ Tuubaa di yéeme yéeme yéeme musta nettali yi sëriñ Tuubaa doon def ci tout tànkam allahuma nag lu dul keroog bi nga xamante ni wax na soxna Fatou Issa soxna Fatou Issa Diop way jur maam Cerno Ibra Fati keroog bi nga xamante ne soxna Jaara toll na ci waajtaayu dem ci la wax soxna Faty Issa ni ko gannaaw bu ma laalee yaay lal di nga waxee noonu gannaaw bu ma laalee yaay lal xaaral ma wax la fi ngay lal la fa xew xaaral ma wax la fi ngay lal bu ma laalee la fa xew ci la koy wax kiimaan yi nga xamante ni Serigne Touba defoon na ko ci tout tànkam ci boobu la doon wax lu waay di nettali ki soxna fakki sa moko don misal mu jigi ñoom maam Thierno do Fati waye sama Diallo moom fofu lay doog a wane yi ya. nga xamanteni Serigne Touba def na ko ci tout tankam kon fofu tamit liñ ci bëgg wax moy balaa nak nit doom ju yor ya, ta xamul doom ji moy lan doom ji di bari lu muy feñal ci tout tankam nga yàgg possible for doom ji tuxu kon fofu wa na ci roy ci lu nit gis ci doomam warees na koy mën talo rek di ko nëbb la ko nek li sabali ko xiste bu si boobu bi daawul fanaan ci kaw lal te booba amagul sax ñeenti at ci say der bi mu daan jullee ci lay nangoo tëdd waaye daawul nangoo bokk moom lal bi ne warmaal way jur wi warmaal way jur wi moo taxoon daawul nangu tëdd ci kaw lal bi bokk ko moom waaye ci der bam daan jullee fa lay nangoo tëdd ba keroog waxtu jugam di jot te booba ñeenti at si sax ko boobu mata mataguñ kooku nag yaakaar naa comme doyut ci kéemaan dara dootu la doy jikkoy soxna si nag jikko yim làmboo woon ba tax ñu koy màggal tey mu doy sëkk royteef walif ngay seeti keneen soxna jaariyatullaahi Buso së sëñ Ahmadou Dior Paxa wala sëñ sëñ Samba Diarra Mbaye dama dul teelu ñoom ñaar kar na ci am na ku ni màndarga yi nekk ci soxna jaara nëbbatuwul moo ko jant ñooyam boo nee dàng xool ab doxalinam da ngay daal di xam ni sëkk ci lii la nekkoon ba tax li mu am tey moom ko moo tax mu ni lëxal laa yaxfa ala ahadin sawmun salaatun du'aa'un summa istixfaarun ay màndargay soxna jaara nëbbatuwul ci kenn képp ku yàlla dimbali ba ak iñaan nekkul ci yow silmax ak réer tamit nekkul ci sa xol màndargay soxna jaara nëbbatuwul ñu ne waaw lan moo nekkoon ay màndargaam ay critère mu ni woorkat la woon bu ne wor kat la won nak ko farata taxul ñuy wax kooru ngat nga lañ ci jublu waye tamit djulli kat la won bu ne djulli kat la won djulli farata taxu ñuy wax naafila lay guddi ya ko waral waye ñaan la won ñaan kat la won ku dan dalal yàlla loxo la waxtu wona diko di ñaan waye ku dan def ay istighfar la di jéggulu yàlla sawmun salatun du'aun summa istighfar waye tamit nga gis yamu ci lolu kenn nit ci ñom ñaar kenn ko ci way sëñ bay sëñ sama jaara bay wala mu nek sëñ mu jofa neena na ba léegi ci xass bëgg ni sumtun sukutun wa qur'anun turattiluhu waxta sahaari idaama laylu idbara sama jaara sumtun noppi won na lool ci la yoonam nekkul ndax kenn musu ko gis mu wax lu dul noona waye tamit noppi won na tamit ci lepp lo amul al-qur'an da ko daan jang ban waxtu waxtu nit ñi de nelaw guddiga sori lool ca lay di jub di jàng alquran kon li sëriñ bi doon wax ci xoqa baaxu fudulan bi zikrillahi xaaliqihim feeñ ci dundam nga xamante ne far war a wax wax ju amul benn tuyaaba dañ koy jaay jënd koo wax ju jëm ci sun borom subhanahu wa taala waaye ki sëriñ bi doon wax ci xoqa ci melokaan nitu yàlla yi kaanu isal layli isal laylu arqa sadri sa xalakin booba tamit gis na ni kon melokaan boobu tamit feeñ na ci doxlu soxna si ba léegi tamit yemuñ ci loolu waaye wa xurmatu dayfi wal ixti wal ixtiraamu wal baslu wal ikraamu wal izaamu soxna jaara ku wormaaloon gan la gan ku ko daan wormaal la ku ko daan bàyyi xel la ku ko daan toppatoo la ba bu ñibbee sax day nettali ni ko soxna jaara daan taxawoo taxawin wu waaye ku daan wormaal ku respecté woon doomu aadama la ak moo mën a toll ak lu la yàlla mën a bindee ndax yàlla la daan xool ci doomu aadama yi waaye dawul xool doomu aadama yi seen jëmm yi noonu la nekkoon ku tabe noonu la nekkoon tamit ku daan màggal doomu aadama dawul doy di kenn kon jikko yu mel nii soxna si amee woon na ko kenn musta gis muy xiiroo ak a ŋaayoo bokk na ci rek li suñu Alaaji Mbàkke wax ci tanbihul mar'a fii hazihi bi'a xista bu si mu nettali ci diggante ma soxna Anta bii benn bis ñu jàng seeni waqaf ba noppi toog di waxtaan ak ngoon soxna Anta ni ko radiyallahu anhuma dinaa liggéey ci kër gi ba jur fi jant dani ko dinaa liggéey ci kër gi ba jur fi jant soxna jaara ni ko waaw waaye dennalante ay wax day mel ni tontante su nga teggin ma denn dennalante ay wax day mel ni tontante bu fekkoon da koo tontu ci sens rek kon day mel ni dañuy wax waxante moo tax ma ne dendalante ay wax day mel ni waaye subaa ci waxtu bi insha allah buñ ci yegsee dinaa la wax man li ma nangu ci kër gi. ba ñu yegsee ci waxtu woowa ca beneen bis ba mu ne ko démb neewal nga da liggéey ci kër gi ba am fi asamaan ba am fi jant man ma fas yéene liggéey ci kër gi ba am fi asamaan te xam na ni lu jant lay day ci asamaan lañ koy wékk. kon ñoom ñaar kenn mo li nga wax am na euh man seen ant borom gawan jant la waye jant la do reey reey ci asaman serigne bi ak asamaan moo tax nekk jant jant serigne bi di am serigne bi ko may mboolem lu mu am ci wilaya gi nga am xamanteni ni yor na ko tey ci Dar salam ko nga gis ni baña baña bañ lan ay wax nak tiisante dalu ko def wérante tamit dalu jikko lolo waral mu bàyyi ko ba wàcca beneen waxtu mu doon doo ko tont balaa la nag tey jigéen boo xamante ni lu moroomu jigéenam wax bala moo am jàmm da ko tont wala mu tiiñam ko gis na ni bokk na ci jikko yi tabe nga ak dëddu àdduna ka neewal nan sama jaara mësta denc dërëm bu jëm ëllëg lépp lu mës am da koy financer ci yoonu yàlla ci bis bi nga xamante ni mooy bis bi mu nekk moo tax keroog bi nga xamante ni wàcc na wuy ji suñu borom subhanahu wa taala mënuñoo fekk benn dërëm boo xam ne neneen alal ji sponsé ko moom ndax tabe bu mu tabe woon li mu amoon jox na ko donga ya li mu amoon jox na ko sëriñ Maama Anta jox ko jox ko gane so sëriñ Maama Anta ya def ko ci kër gi ñëpp jariñoo ko lam taxtakir maalan ilal atiyi tunfiqu fadla quutiha al wa anfaqat maalan ala al wa zawji wa duyuufi wa tullaabi kon nga gis ni tabe kon leeroon na nañ ñi waaye soxna Jaara tamit kadalika bokk na ci jikkoom yooyu mag ñi nettali mag ñi nekkoon ci daara ja si Sàmba Jaara may nee na bokk na ci mandargay soxna Jaara fi ñuy tëjee mandargay soxna Jaara nekk gi mu nekk nday ci képp koo xamante ne ab jullit nga waaye tamit nekkoon jaamukatu yàlla ak kuy topp yàlla ba kawee mboolem jaamukatu yàlla yépp mu kawe leen ba am garaatu lahi, ndax jaaratullahi mooy firi dëkkandoo yalla ki dekkale ak sun borom subhanahu wa taala nga gis ni jaaratullahi moom jëmmi jaarullahi ñaar lañ ko xamé ci aduna bi wala ñet moy muhi diinul arab yi moom dara nga woy jaarullahi yàggoon na lol bokkoon ci nitu yalla yi waye ñaari bi soxna jaara bi lañ ko xamé ñetteel ba di qadim bi wax jaawartullah bi kitabi ila dukhulil jannah ñatt yoo laa gisagum ci histoire ñoo xamante ni dëkkaale nañ suñu borom ba dëkk gëwér moo tax mu ni moom sëñ Samba Diar Mbay min al amarati kawnu l ummi aabidatan mutiatan rabbaha fawqa al mutiati bokk na ci màndarga yi sëriñ Tuba bëriwul naa soxna jaara bëriwul naa sëñ Samba Diar Mbay di way arab waaye bi muy way soxna jaara bari na lool loo xam ne arab la ko way te nan bàyyi xel nag dana wax ni jàggut sëriñ Touba ko soxna ni ko loo wax noonu la Kau ummi habitatan muti'atan rabbaha fawqa muti'at nekon na jam ko to yalla bu maga mak nekon top ko to yalla subhanahu wa ta'ala ba kaw bal sax da mu nak top ko to yalla yeb mu mujj nak nek ci sen kaw nak jitu gum len jitu ci sun borom sin sama neena waqta shita'i wa waqta sayfi ayyuhuma afdal ajati wa arbabu dawrat da ngay gis jamono sedd ak jamono noor boy tangay ñaari jamono yeb da ci daan faj aajo yi doomu aadama yi di ci dind loraange yi ñun ko waa jamono sedd nu mu daan faje aajo yi muy da daan jox mag ñi aw ñam wu xewloo ba pare jox leen matt mu njaaroo da daan jox mag ñi aw ñam wu xewloo ba pare ba pare jox leen matt mu njaaroo te sedd moom ku ko wax wax ci mag il faut nga wax ci matt moo xamante dana ci jaaroo te da daan taxañ lu jëm ci kër gi daan taxañ tamit lu jëm ca dongay ya. di taxañ tamit lu jëm ci kër gi ngir togg waaye ñu taxaj tamit lu bañ ñi jaaroo moo tax toxtil kibaara taamal hakada hataba ta sita in mun sa ayyaami jamono jamonoy noor nag muy jamonoy cooroom muy tàngaay bu metti bi jamono ji tamit da ci daan liggéeyal mag ñi daan seet si sëriñ maamu anta ñun ko naka la leen daan liggéeyee mu ne xanaa daan defar ay njaq takk ko ci saako di ca def ndox yu sedd di ko tatagale mag ñi ba ñëwee ku dox ba sonn naaj bi jàpp la mu tànk te jox la kon yaakaar na kooku tamit ku bàyyi woon xel doomu aadama ne ak ndoxandéem noonu na tamit nekkee woon fu waayu jóge am njàqare boo agsee ci moom bala ngaa tàqale ko moom mu dindi njàqare gi ba mu set kasaaka fi sayfi tu'til aajizina sharaban baaridan kaanat tunfa kulla gullaati yëg dem ba yëg sax ni si sàmm ni topp kat la woon suñu borom waaye ni doon toppee suñu borom noonu la doon toppee ñaari way juróom ci loolu la nekk na ba daal di kawe nag mbooleem ku dib jaam mutiatan rabbaha wal walidayni laha li kawniha fawqa jaaratin wa jaaraati soxna si tamit ci jikkoom yu rafet yooya suñ sàmba jaara bay di misaal suñ bay jaxate feelu ko ca soxna si mustafayantoo ku ko def lu ñaaw mboolem ko mos a lu ñaaw lam la fay lu rafet donc waajur euh, tout tànkam bu baax boobu di meññiteef fi moom muy Seexu Xadim radiyallahu anhu fi mu doon ne di mën a fay ba pare jekku te mën a fay baale kon foofu la ko jëlee ci bi mu jógee rek ñëpp di taxaw mu ne afawtu anil a'daa yi kon foofu la ko jëlee moo tax mu ni mbooleem ku ma sa ñaawal jëm ci moom moo xam ci biir suuf la wala jutul moom rafetal na jëmaat ci yow ndax lan ko lebal lu baax lan ko lebal ci ñaawteef du am lu mu la fay lu dul lu rafet qad ahsanat ma asaat kullu jaaratiha fi ardina wa siwaha min musiati moo tax sëñ bay jaxate radiallahu anhu wax ni daawul lebal kenn ay daawul wax waxil lu jubul daawul lebal kenn ay daawul waxil lu jubul daawu ko jëf bu soo jaajëf man nga naa la man ka man nga naa la nuyu te maa ngi lay nuyu nag yow baati jàmm nga am Do am ludul dul ya fab jàmm lebal fayu xamane ne waa ak wa saw ñepp ngi mus ci sa liggey mbek yow doko yow doko des may mayu nga gis ni kon penku ak saw gi wax fo dem ci aduna bi tay ñoo ngi mus ci liggey soxna jaar yow do ku desi mayu doo ku mayu ku ni bayyi fe di la benn waye ku ni fekk ci fi nga nek di do li nga wax la ni ko yow soxna jaar ko am jaarama ya ko waral sa dooma gën ñépp yaa gën mag ña gën gone ya yaa soxna jaara bégal saw ŋàññi rot na azal ŋàññi mooy wax ju bon rot na azal kenn laa waxatu ndax boo demee ci azal muy asamaan avant ñoo agsi fii ci àdduna foofu lan dindi woon mboolem lu nar a ŋàññi soxna jaara tubaayi buso moo tax mun ko yow soxna jaara bégal saw ŋàññi rot na azal yaa jur ki jëm ci boromam woote ñépp wuyu yaa jur ki jëm ki jëm ci boroomam woote ñëpp wuyu mooy Seexul Xadim radiyallahu anhu kon lii nii lañ doon jaayante liggéeyal ko Xaadimal Mustafa ci wéyjëram bu baax bi muy soxna Jaaratullaahi Buso